toll si ñaar fukki jàngalekat yoo xam ne faatu nañ ci woppi coronavirus yi yéen a gi di réew mi quotidien ñi nga xam ne ñooy jàngalekat yi ñoom nag nee nañu état bu Sénégal maanaam faaliwu leen benn yoon da leen bàyyi ñuy tumuranke ak di dund ay jafe yoo xam ne maara détaal yi ñoom jàngalekat yi nee nañu protocole sanitaire yi nga xam ne état bu Sénégal waxoon na koy jël ci bërëbu jàngkaay yi amul lenn loo xam ne état bu Sénégal ak mooma a kaay gi di réew mi quotidien ñoom jàngalekat yi ci réew nee nañu nag li nga xam ne moom la ñuy ñaawlu maanaam ñàkk faaleek ñàkk fulaal ak ñàkk faydaal gi nga xam ne état bu Sénégal leen koy def ndax ñoom jàngalekat yi nee na ñoom seen naxar ak seen i jafe-jafe amul lenn loo xam ne nguur gi ma ngi ko ci lijjanti waaye nag am na loo xam ne pesum kanam borom moo koy fajal boppam ñoom jàngale yi ci Sud Quotidien nee nañu danañu dem ci ab grève ci lu toll si ñaari fan ndax nag état bu Sénégal am na koppar yoo xam ne war na leen ko fay te ba léegi nii fayu leen ko yéen kaay gi de la soloy xëy wax ci woppi coronavirus ji nee na nag dose bu njëkk bi maanaam vaccin yu njëkk yi ci réewum Sénégal la vaccin yi ñëw jii ci àllarba yi maanaam la vaccin yi nga xam ne moom la ñu wax ne mooy faj coronavirus tey yi di ñëw yéen kaay gi di vox noppali nee njiitu réew mi di président Macky Sall tey jii ginnaaw digg bëccëg gi dana dem ci aéroport international Blaise Diagne ngir nag dalal vaccin yi nga xam ne ñoo war a ñëw ci réewum Sénégal waaye nag vaccin nga xam ne ñoo ñëw ci réew mi vaccin yooyee nag maanaam ñàkk yi bëriwuñu ndax lu toll ci deux cent mille vaccin kese moom la ñuy njëkk a dalal yéen a kaay gi bàyyi mbirum coronavirus wax ci mbiri Ousmane Sonko Mamadou Lamine Diallo mi nga xam ne député la nee na nag ñi nga xam ne ñooy waa assemblée nationale na leen leer ne jamono ji ñoo li nga xam ne mooy constitution bi ak loi bi nga xam ne moo jëm ci wàllum immunité parlementaire a kaay di direct news ñu xëy fekk fa Moustapha Diakhaté mi nga xam ne ay jamono nekkoon na njiitul groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar xëy na dal ci Ousmane Sonko ba xolom sedd ndax nag nee na Ousmane Sonko su waxee ne ab médecin moo ko conseillé ngir nag mu dem ci xeetu salon yooyee Ousmane Sonko waxul dëgg amul benn médecin boo xam ne maanaam moo ko ko xelal moom Moustapha Diakhaté nee na salon boobee Ousmane Sonko lam fa wuti woon mooy bànneexo te nag woote gi nga xam ne ma ngi koy woote gaay yi nag ñu jóg fippu loolee mën naa ñàkk mbir mi nag ci boppam du mbirum politique kàddu yi Moustapha Diakhaté la damay nettali ma ngi ci yéen a kaay gii di yéenekaay gi di exclusif ñu fekk fa maître Ciré Clédor Ly mi nga xam ne avocat Ousmane Sonko la nee na mbir mi guddu gàtt lépp nag complot la waaye nag complot la boo xam ne nañu ko taxawale ak na ñu ko defee amul lenn loo xam ne lu ci jaar yoon la Aminata Lô Dieng mi nga xam ne ay jamono nekkoon na fi ministre ci yéenekaay gi de la Tribune nee na njiitu réew mi di président Macky moom si boppam moo bëgg a éliminer Ousmane Sonko ngir nag amaan ñetteelu mandat ci bopp réewum Sénégal ba tey ci biir yéenekaay gi mu daal di wax lu jëm ci wàllum dindi malaanu kiraayu Ousmane Sonko neen nag ñi xam ne ñooy non ministre yi Ndeye Fatou nekk député ci parti réew mi moom la ñu tabboon waaye nag gars yi mujj nañu ko fa jëlee teg fa Cheikh Bamba Dièye ndax nee nañu Ndeye Fatou Ndiaye moomee député la te ba pare ci parti réew mi la bokk te Idrissa Seck ak Macky Sall jamono ji ñoom ñaar mburoog soow la ñu yéen a kaay gi de Les Échos nee na Ousmane Sonko maanaam amal na ab réunion boo xamante ni réunion secrète la ak ñi nga xam ne ñoo koy tubayul maanaam ay alliés moom Ousmane Sonko daal nay wax ay dëmboo ca maanaam daal di koy défendre ndax Ousmane Sonko bu ñu koy déglu ci assemblée nationale am na sañ-sañ woo benn député mu ñëw di ko défendre ay dëmboo moo ko war a défendre gi de Les Échos nee na taxawaay bii nga xam ne Ousmane Sonko am na ko niru na dina wujji commission ad hoc ba ca la yéen a gi ñu xëy fekk fa ñi nga xam ne ñooy taskadu xabaar yi nee ma waa Synpics ñoom nag nee nañu xooxatal gi nga xam ne moom la ñuy xooxatale taskadu xabaar yi di journalistes yi nañu ko teg ci yoona yéen a kaay gi de Libération nee na jaboru Biram Souleye Diop moom nag nee na amul benn parti politique boo xamante ni laale na ca te nag ne moom la ñu koy tuumal amul lenn na ko sa moom jaboru Biram Souleye Diop nee na nag jëkkëram ci parti Pastef la bokk ne moom ca fi la bokk yéenekaay gi di Vox Populi nee na nag bëri na ñoo xamante ni ay pro Ousmane Sonko la teg nañu leen loxo ci maanaam ci biir mi yëpp ci gox yu bari yu wuute la nga xam ne moom la leen di toppee atteinte à la sécurité de l'État a bëgg a yëngal am réew yéenekaay gi de la sa nee na ñi nga xam ne ñooy jege ñaale Ousmane Sonko yi jamono ji neexul ba neexul waaye nag yëngal nañu dëkk bi ndax tiital nañu yenn ci ay kilifay dëkk bi ndax nag topp yooyee doy na waar génn xeetu doy waar goo xam ne maanaam nag di dànkaafu ne danañu ko daal di publier ci boppam moo tiital état bi journal bi nee bu dee nag amul yenn vidéo wala yenn image yoo xam ne gars yi am nañu ko ci Macky Sall lan moo fi jar tiit lan moo fi jar maanaam di rëpp-rëppi yéen kaay gi di Walf Fadjri nee na en tout cas li nga xam ne moo am ba des la amul benn juge benn attekat boo xam ne bu sérieux la boo xam ne dina jël Ousmane Sonko di ko def mandat de dépôt ñi nga xam ne ñooy waa FRAPP ak waa PASTEF baax a baax xooqutal ak teg loxo gi nga xam ne ñoo ngi leen koy teg loxo ak nag lu salfaañe seen ak xëy jël xalimaam ci réew mi quotidien nee na ñi nga xam ne ñoo ànd ak Ousmane Sonko de ay militam dañoo war a ànd ak dal te ñi nga xam ne ñooy avocat yi Ousmane Sonko war nañoo nag mën a wane adduna bi yëpp ne Sonko li ñu koy tuumal dara amu ci yéen a kaay gii xëy ci sommet G5 bi nga xam ne njiitu di président Macky Sall fekke woon na ko mu nekk invité d'honneur ba Macky jël na lu toll ci benn milliard jàppale G5 Sahel ngir nag ñu